daleen ak jàmm ku ni xaalis neexul danga koo amul ndekete yoo xaalis mën na soppi jëmmi doomu aadama waaye nag laaj bi samp mooy ndax xaalis mën na jënd bànneex comme rek ni ko citation bi faral di waxee l'argent ne fait pas le bonheur lu mu ci mën di doon daal yenn ci artistes yi Sénégal yi ku ci mel ni Youssou nduur Viviane Wally Seck Carlou D wala sax Titi ñoom xaalis soppi na bu baax a baax seen jëmm en tout cas kenn dootul xel ñaar ni ñi ma fi jot tudd daal xaalis soppiwul seeni jëmm ginnaaw imposer seen bopp ci seen sénégalaise bi jaarale ko ci ay kaset yu bëri yuñ génnee ak ay concert yoo xamante ni tourné nañ ko fépp ci biir réew mi ak ci biti réew ca ñooña nag dañ koy tàmbalee ci ki nga xamante ni moo di Viviane Chidid moom Viviane nag ku xool photom yi ak xool ni mu mel xam ni changé na bu baax a baax ba muy door di tàmbali musique nag Viviane nekkoon jigéen bu gàtt yor teint clair foo ko doon fekk moo ngi nekkoon ci ginnaaw Youssou Ndour di ko aw jamono jooje ma nga nekkoon ca Super Étoile jamono di dox muy def ay jéego yu am solo ba jamono ji sax yàlla def mu am orchestre boppam tuddee ko Jolof Band moom Viviane nag jot na def ay concert yu bëree bëri ci biir réew mi ak ci biti réew maanaam ay tournée internationale ci atum ba Viviane nag nekk na jigéen xamante ni dafa dëggal boppam ci scène musicale bi ba loolu sax tax mu gañe ci ay koppar yu bëree bëri loolu sax moo waral ba koppar yi feeñ ci jëmm ji maanaam mu mujjee leer naññi ginnaaw bi Viviane càmmiñam Youssou Ndour moom mi nga xamante ni moo fi woyoon billaay xaalis neex na xam naa ci dara salaw bu ma ci amoon saaku duma dara nelaw moom Youssou ma jigéen Ndour nag am xaalisam nekk toute information groupe de presse bi mu taxawal ministre conseil gi mu nekkoon artiste gi mu nekk tax na ba Youssou kenn dootul sikki sàkk ci ak am xaalisam ginnaaw roi di mbalax nag dañuy dem seeti la golden boy de la musique sénégalaise kokoy kan wali Balago sekk di doom ci Thione balaago Seck doom ja jël baay ja ndax ku gisa baay ñu ni Thione Balago Seck loolu rek dooy na jaloore waaye nag taxul benn yoon ba doomu balaago sekk ji wéeru ci baayam ji mën nañu fàttaliku rek ci atum 2009 bi xale Falamareen bi di doog di génn ak morsam bu siiw boobu boo juddoo fekk bàyyi boobu ba léegi nag Wally Seck def na ay jéego yu am solo ci musique sénégalaise bi nag bokk na ci artistes yi ñuy gën a déglu ci fii ci mim réew daanaka sax sénégalais yu bëri am nañ ay soom ci seen biir téléphone siiw gi mu siiw nag tax na ba mu caa ci profité ba am ci ay koppar jaarale ko ci ay tournée internationale ak ay concert yoo xamante ni doon na ko tëgg ci biir réew mi li daal la olof njaay di wax naan xaalis daal ku ko am mu feeñ sa jëmm maanaam dalay changer physiquement ginnaaw doomi coon balaa ko sekk ji dañuy jàll ci Carlou di maanaam le Baye Fall de la musique sénégalaise no bu leen ko retaan c'est Carlou di moom mi nga xamante ni moo fi nekkoon feccikatu group bi di PBS ci ay jamono Carlou di mi ñu xamoon ca Loxia Carlou di ma ñu xamoon ca njoolaay ba ak sewaay ba mel na ni tey jii ku ko gisaat doo ko xàmmee de jamono jooju ak jamono ji am na changement bu baax a baax daal a ngi dox te xam naa ni xaalis wuy si na ko bu baax a baax moom Carlou D loolu nag li koy firndeel moo di concert yi nga xamante ni mu ngi koy tëgg ci at yi ñu génn te muy fees dell ba nit ñi duñ am fu ñu toog albumam yi nag dañ koy jaay comme ni ñuy jaayee ay mburu yu ndaw ci biir marché bi jamono ji nag ku xool Carlou D xam ni bu baax jël na poids catuwuma la nag waaye Carlou di xaalis daal neex na te loolu doo ko weddi ginnaaw Carlou di nag ki baal bi mooy Ndeye Fatou Tine gën ko xam mbëggeel tem naan ci billaay billaayoo mbëggeel yaakaar naa boobu ñëpp fàttaliku nañ ko son boobu sax bokk na ci li nga xamante ni moom moo taal kii di Ndeye Fatou Tine alias Titi ak léegi nag Ndeye faatu tin def na ay jaloore yu am solo ci seen musicale sénégalaise ñu bëri nag ci fansam yi faral di ko critiquer max pois bu muy jël waaye terewul benn yoon laal yoon di gën a rafet te di gën a imposer ci mbalax mi lenn daal laa mën a xamal xaalis daal